dama lay wax léegi comme exemple sànq maa ngi lay laaj ba xam da ngay déglu euh, actualité mm-hmm. dafa am coow li fa xewoon jàll mm-hmm. euh, newoon naa bu ma jàkkaarloo danaa la ko laaj mm-hmm. ba fan yi ñu dégg ci ki nga xamante ni moo yoroon dossier boobu yàlla suñu borom def jëlee ko fi euh, ba nit ñi léegi xam rek nga xam ne réew mi léegi amatuñu sutura lu xew ñu jël ko jiñ ko nit wala nangam ak nangam ba nga déggee coow yi muy Ousmane Sonko la ca xew ak ñoom seen ak xale yi fa faatoog yëpp wax naa la ko sànq waaye tudd moon bi bi nga ko déggee tak mu génn maanaam yow en tant que Euh, di di koo xam ne da ngay da ngay yar ay xale nan ba gis-gis nga ci am ak lan nga ci lan nga ci dox. xam na lu ci xew dogalub yàlla rek. Ah. xam nga. dund ak faatu moom ci loxol yàlla la loolu xam nga waxaat naa la ko mm-hmm. waaw yeneen xew-xew yi ci xew nag mm-hmm. lu ci xew yow bu ca sa yoon nekkul maandu ci rek mm-hmm. ndax fii ni loolu ñuy jiñante alxuraan moom la mu ci waxan mooy kenn ko ko ko ku jiñ nit na ko ñeenti nit gisandoo te buñ bokk fu ñu jóge te na mel ne doju tus la fa muy wokk comme ni nga ko ciy dindee mm-hmm. kenn ku ca miim ña ca des war nañ leen dóor kenn ku ne juróom-ñett fukki yar mm-hmm. te kenn dootu ci mat seere abadan la wax de ba faaw mm-hmm. léegi nag nga nar monde bépp ñàkk a mat seere ba noppi ku ne juróom-ñett fukki yar war la ko am bopp doo ca bokk te dama leen sutura yàlla yaatu ndax fii ne ñi ñi ami soxna sax naara maasan a ngi fi te teew lay libaasan la ñuy nekk naara maasan wa naa lay libaasan waaw وبنينا فوقهم صبا سدان وجعلنا سراجا وجعلنا سنا من المستعد ما انسى جاجا li noxrij bi abon wana batona jant alfaafan mhm. kon xam nga ko waaw ma ne ko nag naa loolu yi ngi fi te teewul yàlla saa ngi ci sutura ba ñu ci ña ko ñaam leen lew ñi ko mën di def ñu cëpp guddi lañ koy def mhm. te fi ñeneen a ngi koy def ñooñ yàllaa ci def sutura waaye mhm. li ñuy jiñaate ña nga ca biir ndax foo fekk sàcc bu ñu jàpp di ko yuuxu bu feeñagut a nga ànd ca mbooloo ma maanaam sàcc bu ñu jàpp bu feeñagut waaw njañ ko rek moromam mu sàcc mu mu feeñagut a nga ñoom mbooloo ba léeg-léeg sax nga gis ci kook day toll ak ni sànni ko la mu sàccan mu rocc ko dem boo ko yusi doo ko gis ci moom waaw moo tax nag man leen bu doon ku ko def yàlla saxal ci sa bopp donc ganaar da nuyu kilifa ma noppi ne ko kes mm-hmm.